bisimila yéen waa Sénégal yéen waa àdduna wërngal këpp toppati leen ma ma wax leen fu yu baaxee nekk xooleen ma yi xeeti montage photo yow mi am sa anniversaire bëgg koo def ay photo affiche wala nga bëgg koo affiche ba ñëpp jot si sa photo nekk ci ñu defal la ci am mbind mu rafet nee la seeti ma waa Zappin TV wala yow mi am sa mariage nee naa la bëgg koo def photo affiche nee la seeti ma waa Zappin TV xooleen ma yi xeeti montage ba ci ay vidéo ñoom bàyyiwuñ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 séeri Madior ak joor bi di wax que ni kontaan nañ ca trop macha allah neex na trop parce que ñu ngi ciy jëlee ay njàngat surtout man ndax euh, mun naa wax ne tey maa ngi dund comme li di dundu nii ndax euh, dama nekk ñaari góor te ku ci nekk xaw ma ku ma ci war a sëyeek ndax ku ci nekk gëm naa ko ni bëgg na ma trop. mais xaw ma ba tey kan laa ci war a sëyal te te te te te su ma yeboo ma ne li joor di dund nii maa ngi dund lu ko gën a pur lu ko gën a metti te xaw ma exactement nan laa war a def mu nekk cas boo xam te dafa critique sama côté xaw ma nu ma war a def xaw ma lu ma war a xaw ma lu ma war a def ba tax na mun ma ci jox kenn akooram kenn ki nag mus na ma demande ma mariage parce que Demba Ndiaye moo ci mujj mais ba tey mënuma ko wax ne ko déet wala waaw keneen ki tam pareil te su may xool kenn ci ñoom ñaar bañu ma ñoom ñëpp ma bëgg nag ku ci nekk yaa ngi may defal lu nekk di waxtaane seen série bi moom mu ngi defar dëkk bi te tam aussi lépp lu dul tilim ak luy salte yëpp gis naa ko ni mu ngi koy raxas di ko defar te lu nekk ci société bi rek moom lañ nekk du join waa lu xew tv maa ngi nuyu gaay yépp di leen ziar ngi am jàmm di wax ci maajoor ak joor man daal sama doon joor duma seen muy sa maajoor lay seet ndax ñoom ñaar ñoo bëggante woon ñoo tundoon seen tundu final of dafay am ba pare sekk doon doxaan def ko ngir bëgg ko dako defoon pur naqaral joor. pour naqaral yaama doon def pour naqaral yaama ak xam li xew ci yépp loolu moo doon taxoon moo doxaan journalistique ba pare yaamaat bëgg ko woon joor daal la bëggoon moom daal joor so ko njëkki gis la ko après dem bi mu dem feebar bi mu feebar yépp maajoor mi ngi woon di ko wër ak nekk ci liggéeyam xoola gisa dàq nañ ko sax fi doon liggéeye ndax ndax ñàkk liggéey fi te loolu lépp joor moo ko waral asalaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa leen ziar leen ci lu ngeen nekk lay nañu am jàmm waa kontaan nañ trop di série Madior ak Dior série bu neex la macha allah kontaan nañ ci trop kontaan nañ tamit ci yéen ndax yéen a tax li nekk ci ñun ñu mën ko génnee yéen waa Lu Xew TV waa maajoor maa ngi lay wax jàppal rekk dina baax waa joor moom yàgg-yàgg ci sa loxo lay mujj joor moom sa joor la waaw may sa may sa jàppal joor comme sa rakk rek jàppe ko sa rakk rek waaw waa yaayu Madior bokkul ci seex yi seex yi ñett la naat jóob ak yaayu joor ak mama baneel mais yaayu maajoor moom bokkul ci seex yi ndax seex yi ñetti fata yi fata bi ñetti seex moo ci nekk yaayu maajoor bokk si ñoom ñett la waa man nag moom may fan su may fan bi mu deewee dama doon jooy comme si que dafa dee mais bi ma gisaatee ma madame banel waaw dama jàpp ni comme maajoor rek ñooyam dama jàpp ni rek mariama ñëwaat na ci série bi série bi moom neex na lool macha allah kontaan nañ ci yéen Global Health TV asalaamaaleykum waa série Madior ak Dior man la madame Diakhaté soppee Mariama yaayu Dior waa série Madior ak Dior moom série bu neex la waa instant yi moom ñun kontaan nañu moom ñun famille Dior instant yi moom kontaan nañu ndax yaam ak yaayam ñu ngi ci prison bi instant yi moom kontaan nañu bu baax a baax waaw sant yi moom kontaan nañ waaye yaama moom dañ koy bàyyee ma ci baaraamam rek moom lañ koy bàyyee waaw sant yi moom fi ngeen teg seen tànk moom foofu la bu leen ko teg waaw bi daal ngeen war a génnee moom photo bi ku ñëw ku ñëw rek sa morom dina bugg bàyyi leen photo bi nag kenn gis ko waaw dis des moom fi ngeen ko teg foofu la moom kontaan nañ ñun ñun famille Dior man nag maay soppey Mariama yaayu joor asalaamaaleykum na ngeen def sa baba yéen ci jàmm yéen ci bu baax a baax a baax ah ñun na seetaanan tey série bi mais série bi ñu ko gisee nii dañuy wax naa kontaanante nañ trop trop trop trop man na benn affaire rek moom si xawoon a metti mooy dafa am série yu bari dama ko seetaanuma ko mais tey duma ko seetaanee dafa mel ni dama seetaan lépp lépp nag si nekk xam naa nu fa demee waaw man daal damay wax daal mais sëriñ bi daa moom benn la fi daal moom am naa yaakaar ne <laughs> mu mel ni moom wax fa dëgg yàlla moom dootuñu amati dootu fi amati mais tey jii si affaire ëmb yaama bi moom fu si jublu woon tamit ñu xam ne carrément yaama ëmbul moom dina gën a neex nit ñi loolu ndax ñoom foofu waruñu to waruñu fee waratuñu faa amati dara dara dara dara dara dara sax waaw nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag ñu leen di jéggalu deen baalu àq bu baax wàllu xew TV nuy naa leen nuy naa leen bu baax a ba borom baax ngeen nuy naa leen bu baax a ba di leen naan jërëjëf ah, seen benn déglukat la ki nekk Gàmbi maa ngi leen nuyu bu baax a ba di leen naan jërëjëf ah, kontaan naa si série bi torop torop torop série Madior ak joor kontaan naa si torop Madior ak joor su may seetaan te gisuma leen ñoom ñaar ñu taxaw ñu wax du may kontaan quoi. beg naa trop fu ma leen gisee ñoom ñaar tey taxaw waa bam ko promettre ne di di dang may takk kontaan naa ci torop torop torop série bi daal ci man bu yemoon bu bu yemoon fii sa neex na kontaan naa ci série bi torop di leen naan ne jërëjëf ci seen liggéey bu rafet ah, jërë ngeen jef torop jërë ngeen jëf kontaan naa kontaan naa waaye bu ma sañoon daal joor mu sey ak maajoor quoi bu ma sañoon joor a sey ak maajoor loolu rek mooy suma yéene quoi buga naa gaay sey te kontaan naa ci épisode yi tey bi torop torop torop amaatuma li ma ci yokk daal kontaan naa torop di wax deglu yi ne ñu génn si ñu yokk suñu xalaat yokk xalaat tamit yokk lu baax liñ am ci nit ñi ñi gën a mun a am. salaamaaleykum waa Xew TV maa ngi leen nuyu bu baax a baax di siyaare góor yàlla yi nekk si biir ak soxna yëpp man si Seri Madior ak Dior bi laa bëggoon wax. Euh, série la boo xam ne série bu neex la bu am sens la joor moom dafa def benn erreur bu mag a mag a mag boo xam ne erreur bi moom xam naa dina ko sonal torop ndax moom xamoon na ni maajoor daf ko jox may bu njëkk kon moom balaa moon accepté may sax waroon na ko wax na xaar ba xam digganteem ak maajoor fan lay mujj wul ko woon accepté ndax dafa mer rek beneen bi si tegu moom man daal série bi moom na ndax man ci ni ma ko gisee may sa ak maajoor ak jóob ñoom ñett yépp seen yaay yi euh, waaw may sa ak euh, kii may sa ak jóob euh, ak yaama ñoom ñett ñëpp seen yaay ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey ak bàyyi naak ñoom ñett ñooy seex yi affaire bi daal compliqué génne na doy na waar mais série bi neex na am na solo hmm, yaay may sa bi duguram bi loolu bu am solo lay suñu foofu